affaire yi tey dafa làkk match bu ko mais Safor dafa yéex quoi ñu ñoo lii yëpp ñu ñoo defar suñu boobu quoi bu dee ñoom rek affaire bi dara du des waaw no dañuy yéex quoi lii moom jaru ko quoi jaadul moom waa dégg yàlla wan nañ lay yàgg xam nga ñu def jël seen temps xam nga lii du yoon quoi. mais chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour marché marché bi oto Mangadou du fi mun dugg Sapor du fi mun dugg soo amee malade taxi du dugg fii xew soo amee xew doo mun baas ah suñu force yi dafay fees tepp jour gars yi ñu leen neex. loolu moo dul yoon dañu sonn quoi. non genre yi nii wax dëgg yàlla fii mooy deuxième fois ah, amoon na fii nii semaine passée ah, amoon na fee ah si kaw tali bi aussi tamit fii mooy ñaari yoon. si bi la rek affaire bi dafa xat quoi dafa xat marché bi dafa xat quoi dafa xat billaahi loolu moo indi ma affaire bi yokku billaahi safar boobu mënul si tali bi la yem ñu teel record bi billaahi bu amee xaw mooy loolu li du yoon quoi wax dëgg yàlla parce que dafa xat quoi dafa xat trop loolu la ñaan quoi dafa xat parce que même ça malade bu amee fii nii balaa oto mu dugg la quoi oto du mun a dox waaw loolu mooy problème ji quoi. Mara Sémor Guana fii Guana la Guana quoi mais dañu sonn quoi chaque jour chaque jour chaque jour mais xool nañu xool nañu nguur bu jàppale mu dumbala ñu ngir yàlla quoi ñu ñu amuñu nelaw bu amuñu dara. billaay wala chaque jour chaque jour suba ngoon suba ngoon weje weje weje weje weje dafa doy wala suñu suñu mënu jàppale nañu benn espace boo xam ne oto day dugg naaj suñu amee malade taxi day dugg mu mu mu jël ma malade xoolal tey depuis depuis suba ba léegi depuis suba ba léegi. sappoor ba heure la ñëw sappoor ba heure la ñëw. lii du yoon quoi nañu jàppale te yàlla tax. du ñu ngi on support depuis kañ. ba 15 heures ba heure bi ba heure bi lii bilaay walaay dañoo sonn quoi si lii. nañu bi jàppale état nañu jàppale. ñun dimbale ñu quoi te yàlla tax. xoolal ñun ay nit lañu xoolal comme ñëpp comme ñëpp mais xoolal amuñu fiir amuñu amuñu amuñu lu amuñu man sama xol dafa fees quoi amatu lu may quoi bilaay nañu dimbale nañu dumbale quoi nañu dumbale ngir yàlla ñu yaata ñu ma ñu ñu defaral mairie marché ah, ah, wala soit tam ñu wee ñu espace boo xamante ne ah ñun suñu amee malade wala suñ amee cas urgence oto oto oto na dugg normal quoi mais du yoon quoi ay dëj sa doo mun baax